kàddu gàngo waaw <laughs> ajaratu euh, Pierre bi Atepa mhm. moom nag euh, tey doon na amal entretien fële ca RFI moom nag bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi mu yëkkati neen président Macky Sall nag mi ngi souhaité nag euh, ab climat bu apaisé daal di mën a amaat ci biir réew mii di Sénégal ndaxte tension yi bari nañ coow lii bari nañ su ko defee ñu mën a génne joxe na sax ay mbir yoo xamante ne ni nee na fi yekki fan yi néew daañu bàyyi ay prisonniers yu bëree bëree bëri rawatina nag euh, ki nga xamante ne ni moo di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay am na kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko nañ dem déglu audio bi dellu si waat Monsieur Atepa, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous confirmez a mandaté pour rencontrer Ousmane Sonko et aller vers un dialogue Mandaté peut-être un mot trop fort, mais m'a demandé de faire tout ce que je pouvais faire pour que des Sénégalais puissent parler entre y compris Monsieur Sonko. Avec quel objectif L'objectif d'abord d'un apaisement réel de la situation. Il a appelé à un dialogue Mais bon, le dialogue, ça fait plusieurs fois qu'on parle de dialogue. Je parle plutôt de concertation. Et il nous a demandé de voir ce que nous pouvons faire pour réunir les uns et les autres pour voir comment en interne nous pouvons trouver des solutions qui devraient passer par des dates raisonnables pour tenir des élections. C'est-à-dire plutôt que le décembre Non, 15 décembre, je pense que personne n'est d'accord pour le décembre. Je pense personnellement que des délais qui nous amèneraient fin mai pourraient être raisonnables. Mais ça, le dialogue devrait effectivement nous permettre de trouver une date de consensus. Ousmane Sonko, pour l'heure, est en prison. Il a été condamné à plus de deux ans de prison. Beaucoup parlent de la possibilité de sa libération. Est-ce que vous confirmez que Macky Sall serait d'accord ou que cette option est sur la table aujourd'hui Je sais euh, que l'option est sur la table, Et c'est pour cela qu'il a demandé à ce que les gens se concertent. Seulement, pour cette concertation, il faut de la confiance. Et nous, nous sommes là pour essayer de faire de sorte que la confiance puisse revenir de part et d'autre. Est-ce que vous avez rencontré Ousmane Sonko ces derniers jours Oui, plusieurs fois. Qu'est-ce que vous lui avez dit Je ne peux pas vous dire. Je lui ai dit voilà ce que le président souhaite. Il souhaite un climat apaisé. Il souhaite éventuellement que tout le monde puisse être candidat, y compris vous. Et il faut lui faciliter la tâche. Il m'a dit écoute, je ne suis pas seul. Il faut que je consulte les gens de mon parti. Il vous a répondu. noonu la Pierre Goudiaby Atepa yëkkati ci ay kàddu fële ca RFI Omar dégg nga ko nee na mbir yi nag nekkul lenn rek lu dul nu ñu mën a def ba trouver euh, ay compromis su ko defee euh, Sénégal mën a teguwaat ci raay yi Ousmane Sonko génn date bi nga xamante ne nii wax nañ ni euh, kenn d'accord ci Sénégalais yi pour ñu yóbbu ko ba le 15 ñu mën a xool nuñ ko randalee ba mu gën a jege si. Mm-hmm. Ah, waaw li njëkk a neex a jàngat ci mbir mi mooy Ousmane Sonko du demandeur maanaam boo déggee wax ji ba ni mu daanoo. du sonk moo sàkku dialogue wala médiation maanaam Macky moo ko sàkku léegi nag lan la bañoon daaw bëgg ko nangu tey parce que fii la waxoon ku gedd sa ay waaye nettalu xuloo xuloo la waaw loolu tax doo mën a indiwaat yu weesu mais il ñuy fàttali nii am na yu fi jot a xew ba mu jur lu mu jur nii tey Atepa Goudiaby li mu dox nii doxu ko tey njëkk nañ ko def ci lettre jébbal Macky Macky toog ci kanami militant am boo woowee leen ay escroc loolu tamit lan moo waral tey jii ki mu jàppoon escroc tey mun ko wóolu moom ci digganteem ak Sonko. Omar nag yaa pour mu dellu boo bëggee fàttali nag day daal di metti nag yow tamit nag xuloo waaw léegi kooku noonu dafa dem ba nekk ci posture bu dëgëratul maanaam yi bu doon wax naan képp ku fi yëngooti ma def lii ma def lii tey jii moom moo nekk ci logique gu taxaw di maslaa ak di xool kan mooy bokk parce que ay kàddum tey fu ñu koy fàttali mooy demoon na ci télé tubaab yi am benn journaliste bu ko laaj élection yi mu ne Karim Wade jaar na fi xalifa jaar na fi li leen tee bokk. bis bu yoon dogalee ne sonk du bokk du bokk te élection dina am kàddoom gi njëkk waaw bokkul mais élection amul kon dafa yoratul lépp ci loxoom man loolu laa gëm maanaam moom dafa jàppoon benn jamono lépp moom moo ko yor léegi nag médiation bi képp ku ci dox jàmm moom képp ku dox da la war a félicité parce que réew il faut mu am lii ñoo xam ne tey jii bu mbir amee dañuy fàtt seen bopp fàtt seen lépp même bu leen saaga di leen xas même bu ci ay nit àndul ñoom ñu def sacrifice mën a dox ci diggante yi pour l'intérêt du Sénégal loolu tax lii bu dee intérêt Sénégal moo ko tax a jóg ñëpp dañ ciy ànd mais du tey kiñ ko séqal di président Macky Sall ñu xam moom mooy kan heure bu jekke dee mooy nit koo xam ne heure bu nekkee ci benn situation mu difficile mën na nangu lépp ba génn ci bu ci génnee mel na mu meloon mm-hmm. loolu moom lu ñu tàmbal la te bu ñuy def jeunesse bi même ci trente minutes chrono solution info boo wax naa ci yu bari ci yoo xam ne dafa jaar ci moom heure bu posture am xawee lii day fexe ba nu mu ci génnee lépp lu mu bañoon mën na ko nangu pour régler son problème léegi nag bu demee ba régler problème dellu mel na mu meloon ci nekk waxi Atepa mooy ki soppeekoogul moom mooy Sonko ci waxi Atepa moom posture ba mu amul lay ba mu demee sax ba laaj ko mu war a tontu daf na ko dem ko seq ak ay nit. waaw sama waa Mhm. léegi nag bu dee ni nit yemu ko séqal tey jii man dama jàpp ni en politique procès baax na àtte baax na mais tey jii yow les prisonniers politiques yow mun nga am tey toog fi nga toog añ sa añ naan sa attaaye dem lii toog ni non dama am principe ni ni mais ki nekk ci kaso bi ak nekkin ba mu fa nekkee te njabootam yàkkamti ko kooku doo toog na ko non doo fexe nan ngay génnee te dañuy faral di wax naan arrangement bu bon moo gën procès bu baax bu dee ñoom arrangement mën na leen a génne kaso bi loolu doo leen ko bañal ñoo seen njaboot parce que boo xoolee ci ñi leen yóbbul añ di leen yóbbul li reer di de dem di leen lii am ñoo xam ñoo yoroon seen kër te ñi laan leen bu leen génn yëpp kenn mun leen ko yorol ci seen ginnaaw yooyu aussi tamit day tax doo mën a sori ci yenn principe yi nga mën ji ko defendre à naam bu dee ni di nga am ay doute mais bis boo jàppee nii tamit waxtaan ak dox ci jàmm moo leen mën a génnee ñi ciy dox doo leen découragé mm-hmm. mais man fenn rek laa critiquer médiation bi mooy média fii képp ku fi mës a dugg ci kaso doon kilifa dañ ko waxtaanee ba nga génn mais dañuy xaar ba nga génn wax ji doog a jëm kaw ñu naan ah diwde moo ci dox diw moo ci wax diw de ci lii mais bii li ciy garaaw mooy dafa doon médiation boo xam ne sotteegul. ba pare wax ji bari. ah mais est-ce que est-ce que benn côté du dalal xelu sénégalais yi parce que tamit bu ñu waxul dara nit ñi di continuer di xeex non seulement pour nga régler problème bi day jafe moo tax ñu bëgg a yëgal nit ñi nañu teey ñu jéem a xool nu ñu def ba trouver consensus. man nag pour man ak Macky Sall da ngay matt di ëf maanaam mënoo bàyyi matt bi di ëff rek maanaam tey jii même média li ñuy wax ak RFI sax ak Pierre Atepa Goudiaby dama ci am benn jàngat. mooy communauté internationale fu Macky mësoon a def ay njombi ci réew mi wala nguuram dañ ci daan maandu doo gis sax ñu koy li mais bii dañoo gis ñoom ñëpp songandoo ko sëkkatal ko même booy Atépa ibbi na sa benn bunt mooy élection yi mun na bañ a egg. le 15 sëkkatal ko léegi sëkkatal boobu ñu ko sëkkatal communication bi Atépa di def day arrangé Macky parce que day tax ña nekk bitim réew daan wax ci moom nem comme Macky mi ngi teg pas comme gis nañ États-Unis gis nañ France gis nañ keneen gis nañ CEDEAO e comme mi ngi teg benn pas. léegi ñun nan ko xaw a wàññeeku tuuti. Mhm. jéem a xool. d'accord kon tey jii gëm naa ni li liñ ciy doxagum yépp lu arrangé Macky Sall la parce que nag Sonko coolee fi ne mais amagu ci dara libéré gu ñu détenu politique mhm. bàyyi gu ñu Sonko mhm. ay diggee kasa la te wax taxul biir fees. te kilifa moom du nu mu waxee mais nu mu jëfee la. bu dee ni lii ñuy dox dëgg la nan ko tàmbali di jëfee. bu àjjumaa ñu autoriser marche bi gars yi di def fii. d'accord. bu leneen xew nga maanaam nga gis ay act yu lay may ni lii dina xew ñu bàyyi internet bi ñuy coupé maanaam yu bari day tax ku mel na man xam ne sama xel day xaw a teey ma ne ah nguur gi mi ngi def jéego. mais ñoom lañ doon def ba léegi ñu ngi koy def. ñu ngi coupé internet ñu ngi tere ay marche mm-hmm. ñi ngi tëkku ñun war a tëkku. Mm. ñu ngi yabal seen i nit ñu nekk ci média yi di yàq rek ñoom Moustapha Diakhaté ak ñoom El Hadj Diouf ak ñoom seen ah waa Kër Ñàkk Jàmm. d'accord loolu tax y a problème <laughs> loolu tax des fois ba jàmm laa bëgg mais day am lii tee sama xel daal ci doxalinu waa nguur gi ma en tout cas li ci kanam rawuli bët nañu xaarandi rek xëy na du ñàkk dina am suivi Assane euh, tànk jàmm yi nga xamante ne nii ñi def médiation ku ci mel ni gujaa bi ak euh, tin ngir rek Ousmane Sonko mën a génn ci kaso bi et si aussi yi ñuy ne président bi daf ne le 15 la ñoo mën a xool nu ñu mën a def ba delloo si ko mu gën a jege. xanaa bu baax rek te rafetlu ko ndax kilifa moom noonu mu def rek la war a def xanaa kay yéex gi tuuti rek ndax xam nga ni jàmbaari Serigne Sall ji di Cheikh Béthio mu ngi ànd nag Abdoulaye Wade xeex ak président Macky Sall président Macky Sall gañe leen mu toog xam nga ni digganteem ak yoon am leen teg yoon am leen teg yoon loola médiation mënu si woon waru si woon a ñàkk ba yàlla na ko yàlla yërëm jàmbaar ji nga xam ne mooy imam Alioune Badara ndaw ñu tooñ ko jiiñ ko terroriste fu ne ñu jaarale ko fa ndax ànd bu mu ànd ak Ousmane Sonko amu sa gis nga nam demee ba yàlla na ko yàlla yërëm gis nga li xew fii rek barki démb suuf si amoon fii si suñ mbokki lébu yi am na ñu si gànn génn àddina ba léegi ni médiation amu si gis nga gone yi nga xamante ni génn nañ àddina si mbirum aji saar ba léegi ni médiation amu si li nga xamante ni xew na fi kenn mën laax nu toll. Antoine mi ñu jiiñoon ay terroristes. voilà terroristes yeeg yooyu yëpp ñu jàpp tëj ci kaso bi médiation amu ci ñi nga xam ne ñàkk nañ seen liggéey ñi nga xamante ni bu dara xewee du ñu xëy yooyu yëpp médiation amu ci kenn taxawul ni ko baal ndaw ñu liggéey wala nàngam président Macky Sall jàpp fi mu jàpp li muy def mu di ko def. kon nag bu ñu demee tey ji ba ne ko organiser élection yi mu wër fépp tàggoo ni damay organiser élection yi élection dama ko organiser du ma ci bokk ñëpp di ko tàcc mu organiser élection yi bokku ci ñu dem bañ ni 24 heures si des presque daanaka mu xam ni baaxul mu daal di kaay la ñu kaay la ñu waxtaan lu ñuy waxtaan waxtaan bi kay mooy organiser élection yi rek ñii médiation dañoo war a ñëw ni ko dañoo ñëw pour pour waxtaan léegi dañoo bëggoon nga organiser élection yi le 25 bii bu leen waxee ne mënuma ko waaye xam naa ko laataa lii laax bu leen waxee mënuma ko ñu ne ko loolu ko tee man bu neen waxee damaa dama dul organiser élection yi Ousmane Sonko bokkut ñu ne ko loola ko tee defoon laataa. wala wala ñu samp ko ay question mais nag doo organiser ay élection ba sa cëppaandaw ga nga daan ni kaay leen ñu waxtaan. organiser élection yi organiser naa ko dem naa ba nga xam ne baaxut ma arrière ni kaay ñu waxtaan lu ñuy waxtaan waxtaan wi kay mooy organiser élection yi. Mm. kon nag euh, li nga xamante ni ñoom ñi ngi koy dox. Alioune Tine di ma juumu dégg naa ko mu wax ko. li tax ñoom ñu jóg sol seenu daal donte Alioune Tine daana jéem a jot président Macky Sall mu jafe ko. keet daana bëgg jot président Macky Sall wala ni ko Omar waxee. mu jiiñoon leen ni ñoom ay ki ay escroc lañ. mais tey jii ñoom nee nañ ñoom ñoo solal seen bopp seenu daal ndax bëgguñu situation bii tubaab yi di ko réglé te buñ si maandoo ñun ñëpp tekk ni kell tubaab yi dinañ ko réglé. Mm. moo tax ñu sol seen daal dem waxtaan ak président Macky Sall mu jox leen kàddu ñu sol seen daal dem Ousmane ko waxtaan ak moom moom it wax na leen lam leen wax. xamuñu ko mais nag li am loolu lépp kon dañu jàpp ne ñaar ñi ñooy dox tànk jàmm mais ñii dañoo yéex a dox tànk jàmm ndax président Macky Sall bi mu toogee semaine ba sa topp lañ waroon a tàmbalee dox tànk jàmm ndax semaine boobu ba lépp Sénégal yi ñu ngi si ay jafe-jafe mm. gis nga luyaas bi ni nekkee woon si jàmm daan fay vingt cinq mille bi mu ñëwee pour dimbali ñu ñi ngi fay trente mille trente cinq mille quarante mille benn néeg bu am salle de bain soixante mille soixante dix mille te mille néeg bu am salle de bain daw ko weesu mm. loolu lépp dañ si waroon dox kañ ko faloon kenn déggatu ko te faloon nañ ko mi ngi fayee ko poste boobu kenn déggatu lu sa jëm kon médiation yi dañ dafa war a am war a continuer am ñuy gën def ay discours naan ko yërëmal Euh, président bi gën a xam aw askanam ndax daa dund si ñun màgg si ñun xam li ñuy dund xam suñuy jafe-jafe. Mm. kon nag bu si tegee tànkam am na lu xew. Mm. loolu daal laa si doon wax médiation bi pour yow. médiation bi moom am na solo. waaw heure bu ñu ko def baax na. waaw élection yi mm. heure bu ñu ko organiser baax na mais na ko organiser. d'accord. joxe ma jox El Hadj. joxe nga jox biti. <laughs> kon biti. <laughs> alaaji noo jàngatee li nga xamante ne nii moom Goudiaby Atépa wax na ko wax na nag li Macky Sall bëgg mais li Ousmane la mu waxtaan ak Sonko ca biir euh, Cap Manuel waxu dara lu dul rek ni Sonko ne dafa am ñu mu àndal il faut mu waxtaan ak ñoom ba pare. waaw xam nga ku ci mel ni Pierre Goudiaby Atépa ak euh, Alioune euh, su ma doon ñoom dinaa xaw a teey tuuti. li ñuy wax hmm. waaw waaw parce que xam nga benn mbir dafa am Alioune Tine nee na fii fan dinañ libere Sonko dinañ libere gars yi dinañ libere ñëpp loolu mooy li Alioune Tine wax Pierre Goudiaby Atepa nee na léegi ñu libere des milliers de personnes ñu génn loolu tamit léegi mu am loolu mooy liñ teg ci seen loxo mooy liñ leen wax maanaam gëm naa ni kàddu la yoo xamante ni bi dañ leen ko wax ñu ngir ñu jàllale ko jàllale nañ kàddu yi mais parfois kii teg ki ngay teg ci moom ndax yow lay tegal wala kan lay tegal c'est que loolu parfois moom ngeen du moom lañ dut xam ndax ki mise ci yow lan la bëgg ci mise bii maanaam bu ma tegal tegee Assane mii ngir mu def lii ak kii lu mu def lii lan laa ci bëgg lan moo ciy sama bëgg-bëgg lan laa bëgg a gaje moo may delloo ma ñëw ci xale bi waa ji doon expliquer ne xale bi day ñëw ci banque bi sec bis bu de di dépose cent mille francs hmm. mu jigi kii directeur banque bi daan ne ah man de xale bi jaaxal na ma lu tax chaque jour muy déposer cent mille mu ne bu ñëwee daal na ngeen ma ko wool xale bi ñëw ñu ne ko wuyul directeur bi mu dem buy ji directeur bi directeur bi ne ko man damaa gis chaque jour da ngay déposer cent mille francs foo jëlee cent mille francs mu ne ko man damay parier damay teg mu ne ko looy teg mu ne ko bon damay teg ci ne buñ tegee cent mille man dinaa dindi sama bët bi daal di koy fóon bët bët bi fóon ko nee na waa ji ne ko loolu mënta ne dina mun ne ko dinaa fóon sama bët quoi dinaa fóon sama bët waaj ji ne ko loolu mun ne mu na ko tegal cent mille waa ji teg cent mille mu rocci bët bi fóon ko monte ah? waa ji affaire bi naqari ko waa ji ne ko du ma fay ko ah léegi mu waañ na ko mu ne ko waa léegi d'accord naa comme doo fay léegi nañu teg man ak yow cent mille yi nga ma yoreel nii waaj na ko lan la ñuy teg mu ne ko caleçon bi nga sol caleçon bu rouge la waaj na ko loolu duma ci teg lool lool lool lool da waaj na ko caleçon bu rouge waa xam na ni moom solut caleçon bu rouge waaj na ko acca nañ teg buñ tegee nga ñàkk cent mille mu ne ko waaw mu ne ko waaye balaa dara di xew man danga may may ma wut ay témoin waaj na ko waaw mu génn dugg siwaat bi mu génnee duggaat mhm. waa ji daal di génn am ñu ñëw mooy collègue yeeg yooyu da waa ji summi caleçon bi mu nekk caleçon bu noir xam nga kon perte na booy bi ree ndekete booy bi bi mu génnee dafa tegaat ak ñële ne leen kaay leen ñu teg man ak yéen mën naa summiloo seen tubéy seen patron bi ñooñu ne ko mënoo ko mu ne leen aywa leen ñooñu teg ak moom cinq cent kii comme <laughs> ku ci nekk teg ak moom cinq cent mil cinq cent mille léegi nag moom bi mu pertee fii gañe na fële léegi nag président Macky Sall li muy teg ak lan la war a gañe parce que est ce que man c'est que programme sax par exemple damay bëgg a anticiper ay kii quoi parce que damay xam ne par exemple li ñuy gis la plupart mm-hmm. du li muy gañe ndax ñun li ñu jàpp ni moom la bëgg a gagné maanaam xam nga tey ñëpp dañu focaliser wu président sorti bu honorable et la bëgg maanaam ñu xëcc élection yi def nii def nii loolu moom lañ jàpp ni moom la bëgg yaa ngi dégg mais est-ce que dëgg-dëgg loolu la bëgg waaw parce que lim ñu mës a wax yépp ne ñu bugg ko moom la bëgg lim ñu mës a wax yépp ne bugg ko du ko def moom lay def léegi nag lii ñu jàpp ni mooy bëgg-bëggam saa yu ñu jàppee ni lii mooy bëgg-bëggam léeg lekk du doon ay bëgg-bëggam. am na leneen lu léegi lan moo nekk ci ginnaaw lii mu ñuy puus contraire bi. waaw loolu lay loolu mooy lii kii léegi xam nga même ba wax nañu ne mën nañu xëccaat datu élection yi. comprendre nga. Hmm. nee na ci biir wax ji teg nañ candidature Sonko mën na ne. yaa ngi dégg. Hmm. maanaam kon yooyu yëpp maanaam tey teg nañ ko hmm. maanaam ñi ngi véhiculer. mbir yooyook loolu tey ci biir parteem am na ñoo xamante ni bi ñi ngi jéem a siisu siisulu di bañ bañlu te ñëpp xam nañ ni président Macky moom su bëggee dara waa parteem ñemewuñ ko ba di ko yàpp ñooñu ñu activer lañ hmm. ñoo xamante ni bi ñoom ñooy doxalee noonu way laa dëgg-dëgg dañoo wax ne nii lay demee joué wuñu comédie wala dañuy joué parce que gis nañ ni à chaque fois lu mu bëgg noonu la yëf yi di demee tey buñ taxawee ne la goro bi nee na àndu ci àndu ci àndu caaxaan la wala ñàkk ànd kii rek ah? xam nga yooyu yëpp ay question la yoo xamante ni bi war nañu ko tegaat ci taabal ji parce que tey jii man jàpp naa ni mm. lii nga xamante ni bi moom lañ watat nii lii nga xam ni fi lañ jëm ni ci biir mbir mi boo mm. seetee pikiir la buñ la xaw a di duut di calmer les esprits comprendre nga boo seetee fi mu toll nii est-ce que commencé wut a gagné parce que fi nit ñi waroon a toll am na ñoo xam ne ñi ngi wax yenn wax moom tegagut benn acte la kii di wax tegagut dara mais mi ngi calmer esprit yi nit ñaa ngi waaw Atepa moom moo ngi def la mën na leen sekk ma wax la leen attention ci les hommes politiques yi am na ñoo xam ne bi jàpp nañ ñi pareen saay mm-hmm. ñenn ñi muy utiliser ñu ci bëri mën na leen a jàppee pion rek saa leen war a sacrifier sacrifier leen mën nañ nekk comme genre fusil bu duñ leen faale maanaam dañu continuer di nga xam ni xam nga tey jii xam nga tey jii il faut nga xam ni nga xam ki nga jàkkaar lool mm. kii ban jour la ak lan lay def fi mu toll nii mm-hmm. parce que depuis quelque temps kii bi nekkoon ci nit ñi mi ngi waaye xam nga nit ñi boo seetee nit ñëpp nangu nañ report bi ci xel maanaam waxaguñ ko nag mais nit ñi nangu nañ ko que ni dafa am ñuy osé wax ko am ñoo xamante ni bi seen esprit nangu nañ ñi élection yi mënatu la ne ci date bi ñuy wax lu tax nit ñi nangu loolu maanaam jéego yi muy teg mu ngi activé yeneen i mbir yoo xamante ni bi tey mi ngi nelawloo nit ñi. ci yeneen ah. tey la quinze de. tey la quinze de waaw. bu doon bu doon gaa yaa ngi ci campagne. Ah. Euh, waaw dix dans dix bu doon dama ne xam nga fi mu doon nii tey bu doon nga wax xam nga tey fi mu doon nii ci xel. yow xam nga fi mu doon yow élection mënta am kii. le vingt cinq xam nga loolu jàpp nga ko. kii jàpp na a population bi léegi ñëpp jàpp nañ ñi mënatu la ne. yaa ngi dégg leer na. donc moom puus na ko normal maanaam gars yi li ñu wax yëpp ak lu ñu kii yëpp léegi nangu nañ ko hmm. léegi nag mu ngi ci beneen phase ban phase la nekkaat mooy phase u jàpp dat maanaam xam nga dafa tànn le kii moom la kii lool hmm. atepa ah, ah, nee na wax lu wax bu wóor nee na la mais wala mai waa mën na romb meex yaa ngi dégg léegi ci biir loolu nangu nga ni après le deux ku fi nekk président maanaam yaa ngi accepté waat. ni moom moo fi a toogaat maanaam ci lépp rek ci seeni doxalin te joxaguñ la dara. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. maanaam ñi ngi def li nga xam ne moom lañu jëpp maanaam luñ lay digle rek di wax wax ju lëndëm ju leeru ju kii ak loolu ñi ngi leen di calmer mais dara la di fut defut dara. te ngi def. dara defu ko. defut benn jéego. baax na benn jéego defu ko. Mhm. fi mu toll nii ay waxi kese la rek lekkati kese nag naxuti béy. Mhm. ñun nag ay nit lañu romb dañuy béy. Mhm. defe naa ni war nañu mën a xoolaat yëf yi. je comprendre nga ndax fi mu toll nii moom gars yi moom pikiir nañ leen te gars yi xam nga gars yi bi ñu jógee fii ñoom ñëpp nee nañ la deux du fi nekk président. wax naa ne la ci biir gars yi ñi biñ ñi di combattre naan. kii du fi nekk le vingt cinq. day am kii bi am na ñoo xam nee nañ ba la deux rek ñooñu kan la ñuy waxal ndax président la ñuy waxal wala opposition bi la ñuy waxal parce que ñoom jéggi nañu le vingt cinq bi ñoom ña nga ci le deux le deux moom dootu fi toogaat. waaw parce que temps boobu la jour mooy kii ngi joxe date le deux léegi Atepa dugalal na la beneen date. boo xamante ne bi nee na wóorul lu ñuy waxtaanee la. <laughs> en tout cas daal na président Macky Sall xam ne jamono ji mm. mm. du jamono ay dige bu fekkee dafa bëgg nit ñi wóolu ko confiance boobu mu wax day teg ay acte day jëf ci mbirum jëf lañ nekk mais maanaam bu ñu fi nekkee toppaat ay wax euh, yëf yi mën naa demee neneen mm-hmm. nañu na def na jëf nit ñi gis mm. parce que fi mu toll nii moom confiance moom pour ñu mën ko am bëti mm-hmm. Euh, waaw ay wax doyatuñu. jëf rek. waaw na jëf rek waaw dama bëgg a wax te dara feeñut lu war a tax bu ne mars nga bañ. Euh, coupé internet. Ah. heure bu la bu génn quand même démb am na jomaay bàyyi naan ko ak yooyu. tey jii xam ne tey jii ñu bari dañuy fàtte mooy dan ne ñi ñu jàppoon ci manifestation mais du ñëpp lañ jàppoon ci manifestation Omar Diagne ci manifestation lañ ko jàppoon. amul euh, kii Abdou Karim Gueye Fadilou Fadilou Keita ci poste Diomaye Faye mais ñooñu xam nga lan lañ jàppee moo tax man maa ngi dégg ci biir interview bi eh, kii di wax ni ate euh, euh, Atepa di wax ni Sonko dani ko dama àndoon ak ay nit am ay nit yoo xamante ni dañ leen a jàpp tëj leen Euh, booy xool politique bi sax prisonnier politique bi la ñu wax sax ñoom noonu noonu noonu la waa noonu lañ leen tuddee donc ce qui inclut ni am na ñu jàpp ci manifestation am na ñu nu jàppul ci manifestation loolu rek lañ leen mën a tuddee donc man man j'ai bien aimé euh, li li li Atepa wax que ni loolu la jëlee ci Sonko comprendre nga parce que bu fekkee ni euh, ba pare ni mu réagiré aussi ci journaliste bi parce que dañu ko loo Sonko tontu mu ne ko du mënuma ko wax fii loolu j'ai bien aimé parce que nit bu fekkee ni da dox médiation il faut pas ngay dem ci place publique bi di nettali lu kenn wax mais beneen bi mooy rapporté na également ni Sonko dañu ko mm-hmm. foog ma waxtaan ak sama waa mm-hmm. parti xam nga boobu aussi mën na dal xel parce que bu fekkoon nii Euh, euh, ba propre personne am moo ko intéressé je crois que bu dee am na euh, non non Sonko la wax ne mu ni ko damay wax ak nit di ba pare waaw wax na ko loolu ci biir parce que tamit loolu la expliqué ni loolu la ko suuf ba pare loolu la wax si si loolu la wax saa loolu la wax kii nga koy dëggal sax ki technique bi waaw loolu la wax loolu la wax donc am na loo xamante ni même même bu dee wax ko sax waaw te la ñu wax mooy kenn waxuñu kenn ah, nee na waxu la kenn du négocier dara looloo tax ñu dem li ngeen di dégg nii yëpp newut nekkul amul loolu mooy li nga xam ne mooy li waa partem wax donc daal ajala donc tamit il faut ñu wax tamit li waa partem voilà non non moom li man li waaw loolu moom waxi parti ADEPA lañ waaw ADEPA mooy ci ay waxam waaw en tout cas sénégalais yi moom bu ñu politique ma daf ci am yoo xam ne du manifestation la leen jàppee mm, mm, mm. yoo xam ne yu ñàkk fayda yoo xam ne xoola non non yu ñàkk fayda yoo xam ne tey ji bis bu ne nit jëf ko ci réew mi bokk APR wala feneen pourtant kenn topp ko daf ci am ñoo xam ne ba ci Bilal Diatta mi ñuy wax bii du woon manifestation daf ci bëri ñoo xam ne du manifestation tey jii bu dee yolomal am na mais ñooñ ah mais ñooñ bàyyi leen moo gën a yomb mhm. procureur ngay activer ñu bàyyi leen bu boobaa ah ñu ne ah mi ngi teg ay acte mhm. waaye tey gars yi waxtaan nañuy waxtaan te yor seet di duma di en tout cas ajaratu sénégalais yi nañu vigilant gars yi ay calmant rek voilà nañu vigilant te xam ne lu nekk mën na nekk Sonko waaw Ousmane Sonko waaw mm. loolu la waxoon waa te waa PDS sa ngi nii ne il faut Karim Wade bokk wala élection du fi am jeex na tàkk ajaratu ajjuma ji daa mën na am ñu profité bàyyi ñëpp espérons le mu ngi noonu am tout cas na na ñëpp teg seen gët tey déglu rek lii xew suba yàlla rek moom moo ko xam Ousmane Sonko moom la mu wax ay nitam leer nañ ba ñu génnee bind nañ ko def nañ seen communiqué sénégalais yëpp jot ci donc euh, lii lañ leen indiloon tey ci actualité du jour jox leen dig ci altine ak jàmm Aïcha mi ngi noonu merci beaucoup ma jigéen na jot Dieng Sala ñu dem ànd ak partenaires yi dellu siwaat